dafa mel ni moom réseaux sociaux yi daf ko tànkal ndax nekkul benn yoon di ñaari yoon muy wax ni dañu war a réglementer réseaux sociaux yi ndax ñuy saaga mais nag est-ce que dina yomb ndax gis nañ lu ëpp ci ñoñam ñooy gën a saaga ci réseaux sociaux yi mën nañu wax ni tey sax ku mel ni Fatoumata Ndiaye Fouta tàmpi am na ay yéenekaay yi nga xamante ni seppi nañu turam ki nga xamante ni mooy euh, commissaire bi nga xamante ni Seexuna Kayta mën nañu wala Californie mi nga xamante ni daan nañ ko gis muy saaga euh, président tey ñu gis ko mu longoog moom ba ñu bëree bëri jàpp ni am na lu ñuy waajal ci digganteeg moom mm-hmm. loolu nag est-ce que dina nekk mbir moo xamante ne mbir mu yomb la mm-hmm. parce que président Macky Sall lan mooy président euh, problème mu président Macky Sall ak réseaux sociaux yi mm-hmm. waa xam nga moom euh, c'est pas la première fois muy wax daanaka génn na waxaat génn na waxaat muy wax ji waaye dafa am loo xamante ni moo doon yombu yëf yi mhm. yàlla xam na ni de loolu xeex saagakat yi lu yomb la mhm. moom su su su su tàmbalee woon ci ñi bokk ci kaam mhm. jàpp leen tàmbalee ci ñoom jàpp leen ñu xam ne affaire bi nag caaxaan jeex na parce que ñi saaga farak moom comme jàpp na leen rek loolu ak xupp lay doon ci ñeneen waaye ba dala wax ba léegi naan réseaux sociaux yi nangam nangam mosuñu gis ku bokk ci moom. koo xam ne jàpp nañ la. donc nit ñi dañuy foog ne ba léegi affaire bi moom euh, problème dafa nekk ci xuppaate ba léegi. Mhm. di maanaam cest dire que euh, boo koy seet di ko seetantal daal mhm. dafa mel ni dafa mel ni saaga dérangé wu ko trop. Mhm. mais ku ko saaga moom moo ko dérangé. waaw parce que ci réseau sociaux yi ñaata kilifa diine lañ fi saaga. waaw mais gis nañ heure bu ñu saagaa kilifa diine comme décision yi mu jël rek moom lay wax. waaw dinañ ko réglementé. waaw ñaata kilifa diine lañ fi saaga. Mhm. waaw bëri na. ñaata xeet lañ fi saaga mhm. ay askan. ñaata journaliste lañ fi saaga lañ fi saaga. ñaata kilifa politique lañ fi saaga. Mhm. kenn xamul nu mu ñi leen doon saaga ana ñu kenn jàpp leen waxuñ ci ñoom dara or que li li nit ñëpp gis. mooy ñi bokk ci ñoom te saaga bokk ci moom te saaga seen cër dafa gën a yokk mhm. dañ leen gën a jox ay cër parce que gis nañ Coura Macky waaw ci saaga léegi léegi kooku nag tey mi ngi à l'Assemblée nationale waaw léegi léegi yu mel noonu boo ko mhm. gisee ba pare nga naan saaga yi saaga yi mhm. te ñi saaga ñëpp eh, takk ci yow yëkkati nga leen yokkal nga leen loolu dafa am li ñuy tuddee tanaaqut contradiction la xel mënu ko nangu beneen bi aussi ne euh, il faut que ñu ñu définir lan mooy saaga d'abord. Mm-hmm. waaw lan mooy saaga waaw ndax sosal nit. Mm-hmm. day dugg ci saaga. Mm-hmm. wala déet parce que am na ñoo xam ne ci réseau sociaux dañuy sosal ay nit. léegi ñooñu lan la ñuy jëflanteeg ñoom. dégg ki saaga benn nit ak ki saaga aw xeet lëmm. lan mooy différence bi comprendre nga. léegi aussi ndax. affaire bi ci réseaux sociaux yi rek la yem. Mhm. wala day yegg ci journaux yi. Mhm. parce que journaux yi aussi. Mhm. mënuñu wax ak réseaux sociaux yi te waxuñu ñoom. journaux yi waaw bés bu yàlla sàkk ñu bind lu du dëgg. wax lu dul dëgg ci nit. lool loolu nekkul lu bees. waaw non mais léegi dañuy rek dañuy sa à dire du nit ki la ñuy aar. àqam ak yelleefam aar honneuram. aar deram. aar ngoram kenn waru ko jalgati. léegi c'est-à-dire bu fekkee réseaux sociaux yi amuñu droit jalgati. journaux yi aussi amuñu droit jalgati. mais est nekkul ni ñuy politiquer Sénégal moo salté parce que bu dee bu dee politique contrat social la. boo xamante nañ ko war a remplir wala association d'idées mu war a nekk ay di d'idées bu demee ba ci ay détails réseaux sociaux saagante yàkkante der est-ce que nekkul politique gu Sénégal moo salté imam euh, saaga. Mhm. sos. Mhm. ñëpp koy def. bu ñu waxee dëgg. Mhm. journaux yi dañuy sos. am na émission télé yoo xam ne li ñuy wax du dëgg. am na réseau sociaux yoo xamante ni dañuy saaga. mais léegi pourquoi nga tànn réseaux sociaux yi kese. mais waxal ci télé yi. comprendre nga waxal ci journaux yi. man ba ma juddoo ba léegi musuma gis. sos yu day ni li journaux sosal fii imam Alioune Badara Ndao rahimahullah mmh. loolu man musuma gis lu mel noonu. foofu laa ne man ñii man ñii ñii man musuma gis ñu ñemee yàlla ñii. Mm-hmm. procès boobu Alaaji Cissé dañ daan dem tribunal bu bët setee ba nga dégg revue de presse da nga naan man tribunal bi ma nekkoon ak bi ak bi yi di waxtu benn. Mm-hmm. wala procès bi ma gis man la ma gis mm-hmm. tribunal. yeneen beneen tribunal la ñuy wax te même personne bi la. dañ koy sosal. wax lu dul dëgg. chargé ko ñàngal ko ñàngal ko waaye léegi ñooñu duñ wax ci ñoom. mais est-ce que nekkul euh, léeg tamit ñi nekk ci presse bi xam nga tey soo demee ci régle base du journalisme dañ naan la la vérification de l'information te régle base des piliers importants du journalisme. dafa ne nga vérifier information dafa bokk ci régle base ci journalisme est-ce que nekkul tamit presse bi. ñoom war nañu amaat beneen taxawaay comme ñoom la askan bi déglu te presse boobu tamit boo doon définir journalisme da ci boole euh, dañu ko war a diviser ci site internet yi quoi. ci canal yi nga xamante ni fa la information war a jaar. dama lépp ngay boole. Mhm. jaare la ko ci yoon. mais tamit est-ce que nekkul ni tey. président loolu mu wax lu war a am la lu ñu dañ ko war a réglementer. Oh, oh, bu ñu wax réseaux sociaux yi kese. Mhm. mais ñu wax presse bi. Mhm. parce que presse bii nii ni muy doxee jaaduwul. ku leen neex sosal lu leen neex ñu def ko à la bind ci nit ñun ñëpp ñu xam ne lii dara du ci dëgg. te du mujj fenn. alaaji donc problème bi loolu la beneen bi aussi. kon problème bi du problème réseaux sociaux. mais presse bi moo am problème. ñoom ñëpp ngay boole. Mhm. sa à dire man fu ñu waxee réseaux sociaux yi. Mhm. mais li presse bi di def li réseaux sociaux yi def da koo gën a garaaw. Mhm. wala da koo gën a bon. yëpp a bon. parce que dafa am média classique. boo xamante ni télévision yi. ok ak aussi média local bi. muy réseaux sociaux yi ñu tuddee ko li nga xamante ni mooy mbedd mi. waaw foofu tamit jar na imaam ñu indi ay règle wala Sénégal dafa amul ay capacité pour mën ko réglementer dama ne règle règle règle boobu mhm. man se qui me fait mhm. lu tax ñu jukki réseaux sociaux yi bàyyi fi presse bi mhm. bàyyi fi kii waaw te te média média kii classique réseaux bi di def li gënu la li li bi di def gëntu jub gëntu baax li réseaux sociaux yi di def mën nga wax sax ne yenn yu gën a bon yu dëgg dëgg dëgg presse bi da koy def te kenn waxu ci ñoom dara. donc kon presse bi dafa am si ñoo xamante dañu wàcc seen yoon. parce que li leen tënk mooy informer. juste et vrai yàgg na bés bu yàlla sàkk amoo droit far fenn. bés bu yàlla sàkk. Mhm. ñu sosol nit bind loo xam ne boo ko toppee ñaari fan da ngay xam ne dara du ci dëgg. Mhm. dara du ci dëgg. Mhm. loolu ñun ñëpp xam nañ ko pourtant ñooñu kenn waxul dara ci ñoom. mais bu dee nanguwoo ba tey ñu réglementé ko dañ ko nar a bàyyi nii ñuy saaga mais gis nañ tamit ci opposition bi ñoo xamante ne ay saagakat la ñu woon tey opposition bi ñu ngi leen ngemb comme kan Assane Diouf dañ ko ngemb ah waaw mi ngi ànd ak ñenn ñu ñu gën a yaakaar ci opposition bi mais mais mais aussi xam nga problème bi dafa am yoo xam ne mhm. da nga ko war a xool jàngat ko mhm. xam nga man kaaw Assane Diouf Assane dama ne dañ koo tooñ mhm. tooñ gu rëy man en tant que sénégalais wax dëgg yàlla. Hmm. dama cee am kersa. niñ ko doxalee. Hmm. parce que bul fàtte ne Assane dañ ko tuumaal. Hmm. ne terroriste la. ci tuuma terrorisme. bi ñu teg ci kaw Alioune Badara ndaw ba ba mu faatu ci gannaaw luñ ko teg tuuma yooyu lañ teg Assane Diouf ba delloo si ko ci réew mi. Assane Diouf terroriste la. déedéet. Sénégalais bi gën a gàtt xam-xam. xam-xam na ni loolu ñu ko wax du dëgg. dañ koo sosal. Mhm. jaay ko doole indi ko. mën nañ xam ne dañ ko sosal. jaay ko doole indi ko mais jëf jim daan def mooy ci saaga lañ ko xamee léegi saaga ya. Mhm. saaga yow doo ci ànd ak moom. waay man duma ci ànd ak moom. Mhm. keneen du ci ànd ak moom. waaye léegi saaga yi dañ koy condamné wala duñ ko condamné. dañ koy condamné dañ koy benn nit bu am xel doo ci ànd. waaye léegi nag liñ ko tuumaal. ñun ñu xam ne du dëgg. tàqali ko njabootam bul fàtt bi muy jóge fa dafa am jabar mhm. am fa doom am fa doom ñu tuumaal ko lu day ni terrorisme mhm. dëgg ci ñoog moom ñoog moom ba indi ko fi ci loolu moom duñ ko condamné mhm. te ko ko tuumaal du benn nit état moo ko gis ay saagakat ñu ci réew mi di doxe nu leen neex waaw donc bu ñu def deux poids deux mesures man loolu laay bañ comprendre nga saaga fépp foo dem am na fa nañ boole ñëpp jaarale leen ci yoon waaye tey xam nga ne ku mel ni usmaan Diagne. Mhm. usmaan Diagne lu mu def. lan la usmaan Diagne def. Mhm. professeur. lan la usmaan Diagne waxuma Cheikh Omar Diagne. Cheikh Omar Diagne Ousmane mhm. laa wax. mafia kàcc kàcc. mafia waaw lan la def. yow buñ ne ne lii a tax ñu jàpp ko mais da ngay yow da ngay waaru ci yàlla. léegi ki ki nit ñeme na koo tuddee saagakat. yow xam nga ne du saagakat. man xam naa ko. et pourtant ñu ngi ko tëj sànni ko ci kaso bi fàtte ko fa. te jeunes yi gën a baax ci réew mi gën a brillant gën a baax xel réewam man koo jëriñoo famille am mën koo jëriñoo ñu jël ko sànni ko ci kaso bi fàtte ko fa waxuñu sax lu jëm ci mbiram Ousmane Diagne lan la def mooy li ma la wax sànq rek est-ce que nekkul situation politique Sénégal moom moo santé léegi léegi cest à mhm. président de la République mhm. moom ci réseaux sociaux yi mhm. ñi dàq saaga da leen a bàyyi. Mm-hmm. ñi saagawul mu jàpp leen tëj leen. mais kooku bu boobaa dañuy wax ne mën naa wax lu ne foofu mais duñ fa gis yoon moom dafa mel ni euh, bu bu dee wax yoon yoon yoon xam nga bu yoon amoon. Mm-hmm. mais kii kenn du ko tëj Ousmane Diagne bu yoon amoon kenn du ko tëj bu maandu lu mu def lan la def. Ah, waaye dama ne euh, kii sama waa ji mm-hmm. gis nga nag ñun benn problème rek lañ am mooy dañuy gis dëgg di ko raay raayal mais Ousmane Diagne mi wallahi wallahi wallahi su maandu te amoon du fanaan fee mu nekk te ce qui est sûr et certain bu fekkoon na moo président de la république ñoo far duñ ko tëj loolu xam nga ko moo tax moo tax moo tax moo moo tax ñooñu ñun yoon yoon